bu ngeen dëkkee di sant ci xéewal yama leen di xéewalal ma daal di ko yokk kon nu ngi ñaan yàlla suñu borom an yajalana min ash-shakirin yal nañu yàlla boole mais ñu ñu bokk ci cantaakoor yu mag yi amin ya rabbal alamin mbokk yi bokk na ci lañu war a sant yàlla ci xéewal yam ñu defal mooy xéewalu nelaw bañ daan jëfandikoo ci ginnaaw tuuti yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam daal di fa tegtal ne képp ku yàlla wërsëgal bi nga jógee ko ci jëfandikoo xéewal boobu yàlla xéewalal la yow doomu aadama bi rawatina yow julit bi yenent bi alayhi salaatu wassalaam lam ñu fa joxoñal te mu doon tegtal bu leer moo ne war a wax alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama amatana gannaaw bu mu namee sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw bu ma doon jëfandikoo ci ginnaaw tuuti waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy dellu buur bi tabaraka wa taala na yow julit bi boo yeewoo ci nelaw nga daal di sant yàlla ci anam bala yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxñal tegtal bu leer bam la tegtal ne noonu nga war a sant yàlla boo ko jëfandikoo nii xamal ne keroog ñaan boobu nga ñaan wala baat yi nga tudd ni dinañ la si bindal yiw su ko defee chaque fois boo yeewoo ci nelaw nga tudd baat yi xamal ne tudd bi nga ko tudd bindal nañ la si yiw bindal nañ la si yiw ngir noo sante yàlla ci jamono bi la yàlla delloowee sa ruux nga daal di tudd baat bi nga xamante ni mooy alhamdulillahi mboolem xëytu cante yi ñeel nañu yàlla alladi ahyaana mooy buur bi ma dundal baadama amatana gannaaw bu mu duggalee sama jëmm ji dee bu ndaw waaye nag wa ilayhi suur ci moom yàlla lañuy ñuy dellu yàlla la ñu yàlla man loo saa yu ñu yeewoo ci nelaw jëfandikoo nañu xéewalu yàlla bi nga xamante ne mooy nawum yal nañu yàlla wërsëgal suñu làmmiñ muy tooy di tudd baat bi amin ya rabbal alamin su ko defee jullit bi di épargnel boppam ngay fagul sa bopp xeetu yiw yi nga xamante ne ci yeewute ne law dong nga ko mun a wax bañ si bindal yiw yooyu yan nañu ko yàlla gël yal nañu ko yàlla kàttanal amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xam ngeen ne Rewmi FM 97.5 waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ñu ngi yemoon ak yéen ci njëriñu xam-xam newoon nañ leen ñu ngi si année scolaire ubbite école su ko defee ñu bokk géema nab nabi ak mboolem auditeur ya ñuy bàyyi xel ci waxtu wi ci daara ji su ko defee ñu xuusandik yéen ci njëriñu xam-xam mooy fadlu talabul ilm mooy njëriñ ba nekk ci saaku xam-xam minal kitaabi wa sunna alquran joxoñ ko waaye sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa mu daldi ñu ko tegtal ci anam ba mu gën a leeree kon su ko defee ñu géem a xuusandi ci géeju alquraan ñu géem a xuusandi ci dexum alquraan wala ci àllum alquraan su ko defee ñu xool anan lan la ñuy taxani comme njëriñ ci àllum alquraan waaye nag anan lan la ñuy géem a napp ci géeju alquraan comme lañu ñu war a njëriñ ci daara yi wala ci école yi wala ci internat yi moo xam fépp foo nga xamante ne dinañ fa jàngale xam-xam moo xam xam-xamu àddina la wala moo xam xam-xamu islaam la kon thème bi mooy fadlu talabul ilm ngéneel ba nekk ci sàkku xam-xam mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot alquran di téereb yàlla ba mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu demee xool ci suratul mujadala dinañ fa gis aaya ba nga xamante ne qaala allahu taala audu billahi min alsheytaani arrajim yarfaci llahu alladina aamanuu minkum walladina utul ilma darajatin suratul mujadala aya onze mbokk yi yann jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot téere bi yàlla ba mu wàccee ci yonent di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla subhaanahu wa mu ngi nii di fa joxoñal yonent waaye di fa joxoñal képp koo xamante ne bokk nga ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rawatina nga di julit yaa wara a mën a bénéficier wu aaya ba yàlla joxoñ ci téere bi mooy aaya bañ doon jàng léegi kon mag yéen ak képp koo xamante ni xam-xam ñor na la bur yàlla mu ngi ne taggal na tagg na ñooñu xam-xam tabbal na ñoñu xam-xam lenn li nga xamante ne moo nekk ci la nga xamante ne mooy njëriñu xam-xam su ko defee nañ leen bokk xuus géem xool géem taataan ana lan mooy la buur yàlla suñu borom subhaanahu wa taala joxoñal képp a koo xamante ne xam-xam ñor na la waaye ana lan la buur yàlla tabal comme garaat ñooñu ñu xam-xam ak ña nga xamante ne dañoo gëm yàlla alquran andi ko ci saar bi nga xamante ne mooy suratul mujaadala buur yàlla ne ci aaya bi yarfaillahu buur yàlla dina yëkkati alladina gaa yi nga xamante ne amano ñooy ñu gëm yàlla waaye bokkalewu ñoo ko yàlla dara waaye nag bi léegi dina bokk ci ñu yëkkatil seeni daraja walladina ak ñi nga xamante ne utul ilma jox nañ leen xam-xam darajaatin place bu kawee fa yàlla mbokk yi ñu war a mën a déggee ci maanaa aaya bi bur yàlla ne man yàlla dinaa yëkkati ña gëm yàlla wéetal yàlla te bokkaalewu yàlla dara dinaa leen yëkkatil seen daraja fa man yàlla waaye nag ba léegi dinaa boole yëkkati daraja ñi nga xamante ni tamit ñooñu ñooy gaay ya ma jox xam-xam su ko defee daraja bu kawe ba nekk fa man yàlla palaas boobu lay teg ña gëm yàlla te bokkaalewu ña ko yàlla dara waaye nag ñañu jox xam-xam tamit ñoomit dinaa leen boole ci daraja yu kaw yooyu kon nga gis ne yow mi yàlla jox xam-xam moo xam xam-xamu alquran wala xam-xamu àddina waaye ndegem yaa ngi laltaaye ci cellaange yaa laltaaye ci mbaax ak diggu ak sellal jëf ji jiitaluloo koom-koomu àddina ci xam-xam bala yàlla jox xamal ni buur yàlla nee na waajalal na la dikkuwaay daraja ju kawe woo xamante ne ndegem alal mënut la kaa jox kon bu la ko yàlla diggee nang ko war a danga war a gëm nga bàyyi ko xel ba tax na nga xar sa tànk tubéy takk sa ndigg laxasaayu ngir promesse bala yàlla dig ngir promesse bala yàlla promettre ne yëkkati na daraja way gëm yàlla ñi waaye yëkkati na daraja bu kawe ñamu jox xam-xam bu ña xam-xam nag xam-xamu islaam day dugg waaye xam-xamu àddina tamit day dugg ndegem ci laangel lal na ko ndegem ñoŋal xam-xam moo ko lal ndegem déggu ak baax ak jëmali kanam mbaax moo lal xam-xam woowu nga nar a joxe su ko defee jëmm jooju de dina bokk ci ñi nga xamante ni yàlla da leen dig ne yarfa illahu alladina amanu yàlla nee na yëkkati naa daraja yi woy gëm yàlla ñi nga xamante ni seen gëm yàlla boole wu ñu yàlla dara bokkaale wu ñoo yàlla dara amul dara lu ñuy dendandoor ak yàlla ci lenn du mbindaafoon du esprit du leneen dañoo wéetal yàlla gëm ne yàlla kenn la koo xamante ne amul dara lañ ko war a bokkaale képp ku gëm yàlla gëm yàlla wini waajalal naa la daraja bu kawe fa man yàlla subhaanahu wa taala bi léegi mu ne walladina utul ilm darajatin yëkkati naa darajay gaa yi nga xamante ne ñoom it jox naa leen xam kon yow mi waaja dem école ngir joxe xam-xam bala yàlla baaxe ngalla waay bu alalu àddina tax bañ a joxe xam-xam boobu comme na la ko yàlla baaxe ndax gënoo fi kenn gënoo fi jàng kenn xanaa du kat daalika fadlullahi yutihi man yashaau la doon rek waaw noonu la mel ngeneelu yàlla moo koy jox ki ko soob kon yàlla bu la tànnee ci askan ba nga bokk mu jox la xam-xam ba tax ñu naw la mu jox la xam-xam ba tax ñu ubbil la buntu école wala ñu dénk la classe lim nga war a jëfandikoo xam-xam woowu yàlla baaxee la ngir nga jëmale ko ci ña nga xamante ne ñoo wóolu école ba ñu indi seeni doom wala bërëb ba ñu yóbbu seeni doom kon nañ leen géem góor góorgóorlu joxe xam-xam woowu ni mu gën a selle ni mu gën a baaxe ni mu gën a rafete ngir ëllëg ci biir ñooñu nga jox xam-xam woowu yàlla yenkee walla yow mi koy joxe su ko defee yàlla boole la ci ñamu dikk palaas bu kawe fa moom yàlla buur bi subhaanahu wa nañu yàlla boole ci ña muy jox daraja ju kawe yooyu ndegem ñu ngi joxe suñu xam-xam ba ñu yàlla dénk ci anam bu mu gën a sellee anam bu mu gën a jekkee su ko defee buur yàlla tabaraka wa taala ma la yow doomu aadama moo ñaa lella logiciel ak la nga xamante ne mooy espace mémoire ba mu la roof ci sa biir bopp installé fa logiciel bi nga xamante ne da nga war a xàmmee da war a xam danga war a stocké ci logiciel yooyu danga war a mémoriser ci logiciel yooyu loo xamante ne moom nga war a génnee nga jox ko nit ñi ndegem buur yàlla moo la installé espace boobu ak carte mémoire boobu ci sa biir bopp bi kon yàlla moomu moo la ne nanga wax ne waxul rabbi zidni ilman del wax sa borom yokku ma xam-xam ndax espace boobu munoo koo feesal espace boobu munoo koo xaajal espace boobu munoo koo rempilil ba mu fees amaana du ñàkk mu am kay déglu mu naan waaw kii lu muy wax lu mu doon mooy lañ lay wax yow mi ñuy déglu te nga bëgg a poser question bi mooy ne xamal ni buur yàlla logiciel intelligence yëm ñu moo ñaale dinañu dund mille na junniy at duñu war a mën na remplir espace boobu nekk suñu biir bopp ku ko weddi xalaatal ñaata nit nga xam yow mi bëgg laaj question bi xalaatal ñaata góor nga xam ñaata xëytu góor nga xam bëri nañu lool xëytu góor yooyu ak seeni tuur nga ne ma waaw waaw nga xam seeni sant boole kook seeni melokaan ak seeni tuur ak seeni sant nga ne ma waaw waaw nga boole ci seeni numéro téléphone nga ne ma waaw waaw nga boole ci seen adresse ak seen email ak seen dëkkuwaay nga ni ma waaw waaw ñaata mbir nga ràññeetle ci li lay njëriñ ak la njëriñ bari nañu lool bu ñu la joxee bik ak fëy ñu ne la na bind ñaata mbir nga xam la la wala njëriñ ak ñaata mbir nga xam eh, yalay lor doo ko mën a bind tellement ak ni mu bëree ci xam-xam woowu mais teewul sa espace bopp bi léegi xaajul bay fees te loolu yow la concerné kon bur yàlla mel la bindal intelligence boobu buur yàlla mi la bindal espace boobu ci sa bopp bi mu vide mu nekk di vide ndax daa préparé daa waajal espace boobu ne danga war a mémoriser cent quatorze ya nekk ci alquran téeméeru saar ak fukk ak ñeenti saar ya nekk ci alquran danga ko war a mën a mémoriser boo ko mënute mémoriser tamit ngalla waaye na nga góor góorlu xisib yeeg sumun yeeg rubu yeeg yooyu nanka géema mémoriser bu dee jàppandiwul alal aqal lu ko tàmbale ñaar fukki saar yu mujj ci alquran loolu danga ko war a mémoriser waaw la ko tàmbalee suratu tiin ba keroog ngay àgg qul auzu bi rabbin naas muy ñaar fukki suuraat yooyu danga ko war a mémoriser moo gën ngay mémoriser la nga xamante ne amaana bu lay amal njëriñ àdduna fii dong la yem ba tax na moom yàlla mi bind espace boobu ci sa biir bopp bi mu nekk di vide mu dese di vide bu fa rempilil ay way bu fa rempilil ay folklore bu fa ñuux loo xamante ne du am benn njëriñ ci sa dund waaye nank remplir la nga xamante ne mooy la njëriñ fii ci àddina mu di la njëriñ ci alaxira te lay njëriñ jullit bi fi duniya wala axira ëppul te génnul ci njàngum alquran ak tegtal ba yonentu bi tegtal sallallahu alayhi wa ne noonu la jullit bi war a doxalee ba tax na yàlla mi la bindal logiciel yooyu ak mémoire woowu buur yàlla moomu moo la ne waqul del ñaan del wax yow jullit bi rabbi sama borom rabbi yow sama borom yow mu ma bind zidni maa ngi lay ñaan yàlla nga ma yokk ilman xam-xam kon yàlla daf ne la yow nit ki wala yow jullit bi wala yow doomu aadama bi waxal ñaanal yàlla la nekk fa yàlla du xaaj du jee xéewal yañ dut mën a lim lañu bari nañu lool waaye boo gisee mu seppi si mu tànn ci ne la ñaan ma ma yokk la xam-xam ndax moom mi xam-xam-xam nu mu tollu valeuru xam-xam nu mu toll ba tax na waxut la ne ñaan ma ma may la fan bu gudd te moo ne yàlla mën naa wax ne ñaan ma ma may la fan bu gudd waaye waxut loolu pourtant yàlla mën naa wax ne ñaan ma ma may la alal te waxut loolu mën naa wax ne ñaan ma ma may la doom te moo ne yàlla waxut loolu bi léegi te moo ne mën naa wax ne ñaan ma ma mee la yii ma la limal nii waaye boo gisee mu seppi loolu yëpp teg fee mu ne la ñaan ma ma yokk la xam-xam ndax boo xamee ci nga war a mën a am doom boo xamee ci nga war a mën a am alal boo xamee ci nga war a mën a jëfandikoo la nga xamante ne mooy lam la waxul waaye yi mu la wax ni yëpp bu la ko mayee te amoo xam-xam noo koy jëfandikoo loolu catastrophe la mën nga ciy loru mën nga ciy lor nit ñi mën nga ciy lor askanu lëm nga desale ci loraange bi ndax ñàkk xam mooy la yóbbu ba nga jëfandikoo loo xamante ne di ci loru ña nekk say wet dinañ ci loru kon ñàkk xam-xam musiba la ci pénc ñàkk xam-xam musiba la ci askan ñàkk xam-xam musiba la ci doxalinu képp koo xamante ne yaa ngir doxal loo xamante ne amoo ci xam-xam ñu joxe misaal bu terre à ki mënul dawal oto boo ko joxee oto la muy def mooy ñëpp xam nañ ko jarul sañu di ku tudd waaw ndax yàlla moo ñu njëkk moytandikuloo li ni mel moo tax mun nañu sur ca suratul isra ci alquran la wala taqif ma laysa laka bihi ilm bul toog bul taxaw bul dugg bul nekk ci li nga xamante ne amoo ci benn xam-xam waaw yàlla muy na la nga baña a tàbbi ci lépp loo xamante ne amoo ci benn xam-xam amoo ci dara li nga xamante ne lu wér la amoo ci dara loo xamante ne lu wér borom tabaraka wa moo la ko muy moo tax mu ne la waqur waxal waqul waxal rabbi sama borom sit nii ngi lay ñaan yàlla nga ma yokk ilman xam-xam ca surtu taha aya 114 su ko defee loolu yëpp dafa bokk ci njëriñu xam-xam bi nga xamante ne yow mi yore xam-xam yow mi yàlla jox xam-xam bur yàlla nela ñaan ko mu yokk la xam-xam mais yow mi sàkku xam-xam tamit ba léegi bur yàlla ne ñaan ko moom yàlla mu yokk la nga xamante ne mooy xam-xam ba léegi mbokk yi bu ñu demee xool am na beneen grad bu yàlla buur bi tabaraka wa taala tabbal ñooñu xam-xam ca suratul fatir ci aaya ba yàlla di wax ne innama yaxsha allaha min ibaadihi l ulama lu fi nekk ña nga xamante ne ñooy ñi bàyyi xel yàlla suur yàlla ragal yàlla ci jaamaam yi du lu dul boroom xam-xam yi allahu akbar mbokk yi ndegem boroom xam-xam yii la yàlla tabal garaat bi ni mel tax mu ne innama yaxsha allaha ñi fi nekk di ragal yàlla innama yaxsha allaha ñi fi nekk di bàyyi xel yàlla innama yaxsha allaha ñi fi nekk di suuraale yàlla ci seeni lépp seeni kàddu seeni doxalin seen demelanteeg dikkalanteeg seen muamalaat seen jëflante ak seen tasarrufaat ak seen la ñuy disperser nañ koy récupérer nañ koy disperser nañuy jëmalante nit ñi fu ñu wéet fu ñu wéetale ko fu leen kenn gisut ak fu leen nit ñi bàyyi xel ña fa nekk di sóoraale yàlla min ibaadihi ci jaami yàlla ñi du ñenn lu dul ña yàlla bëgg a wax ni waaw bi nag dafa am kuréel bu spécial ña yàlla tabal garaat ba yàlla bëgg a wax nii moo tax mu ne al ulama mooy boroom xam-xam yi waaw yàlla daa yore garaadu xashiya garaadu ragal yàlla fuglu yàlla bàyyi xel yàlla xam yàlla ne moy kay contrôler doomu aadama fi alaaniyatihi wa sirrihi ñooñu dañoo bàyyi xel yàlla ne buur yàlla mooy kuy càmbar di contrôler di gémm gëstu doomu aadama bi ca la mu wéet ak ca la mu ko ñay bàyyi xel yàlla ci anam wi ci jaamu yàlla ñi yàlla nee na ñooñu duñu borom taaru ñi duñu borom alal ñi duñu borom maqaama yu kawe yi duñu borom sant yi duñu borom tur yu mag ñi duñu borom askan yu mag ñi duñu kenn duñu lenn lu dul borom xam-xam yi moo tax yàlla jël garaatu xashiya mu tabal ko ci jaamu yàlla ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi kon képp ku yàlla wërsëgal nga di boroom xam-xam yàlla tabal na la weneen garaad bi nga xamante ne mooy garaadu xasiya imaginel keroog bés pénc mbooloo bi bari lool nit ñi takku lool macha allah yàlla ni ci alquran wa ma hum anha ndaje boobu dadi ndaje bi nga xamante ne amul kenn ku koy wuute amul kenn kuy wuute ndaje boobu ndaje boobu ñëpp koy teewe ndaje boobu de bokkul ak suñu ndaje àddina ci nga xamante ne am na ñu koy teewee am na ñu ko du teewee am na ñu fay dem am na ñu dem naam waaye keroog bés pinc ndaje la bi nga xamante ne yàlla moo ñu ne womaahum déet ñoom an haa ci bés boobu bi raa ibiin ñu di ko wuute wala ñuy absente nekk feneen wala ci leneen déedéet bés penc ndaje la bi nga xamante ne kenn du nekk fen fudut ci ndaje boobu kenn du nekk ci leneen lu ci ndaje boobu kenn du absente bés boobee kon nees nañoo gis ni bariwaayu nit ñi ak mbindaafoonu yàlla yi ci bés boobu foo ko takk weesu na ko man ngaa imaginer ne keroog ngay doxantoog benn barch biñ la tabal barchu ghashiyatullah batchu ragal yàlla ñu tabal la ko ñu ne waaw kii lu tax mu ràngoo batch bi ñu ne moo nekk ci jaamu yàlla ñi nga xamante ne dañoo ràngoo xam-xam ba ñuy jëfee fekk callaange ko lal diggu moo ko lal ak lépp loo xamante ne mooy valeur moo ko lal imaginel keroog ñu tabal la garaat woowu kon di nga xeeb peyoor bañ la doon fay jamono bi ngay joxe xam-xam woowu di nga peyoor boobu ndax yàlla moo lay fay peyoor bi nga xamante ni boo ko naree gam-gamle privilège yañ lay jox fii ci dund àdduna bi ngay joxe xam-xam woowu la ko jaral kon nga dégg ci ne gereef beeg xeet yi ko niroo ko jar la nga war a def mooy joxe xam-xam woowu ña ngi ko séqal ci dund àddina bi buñ la joxee sa ak baax na buñ la joxul sa ak xamal ne buur yàlla wax na la ne ci téere bi wallahu indahu xusnul maab fa yàlla de nekk na fa mujjantil bu rafet bu ñong boo xamante ne keroog bu la wàccee wàccuwaay bu am solo woowu di fàtte coono bi nga fi nekkee woon ci ñàkk laa ñàkk buñ la ñàkk jox sa àq ci xam-xam ba nga doon joxe ndegem buur yàlla moo ne innama yaxsha allahu min ibaadihi ña takkoo ko ragal yàlla ci sama jaam yi de duñu ñenn ñu dul al ulama boroom xam-xam yi ndegem xam-xam yii la yàlla tabal garaat bi ni mel yow mi di boroom xam-xam bay waaj dugg classe ñu lay dénk di dénk sama bopp ñu ngi lay dénk di dénk suñu bopp di dënk képp koo xamante ne yàlla yenkeewal na la xam-xam ba nga war a joxe ci tuut tànk ya ko war a jëfandikoo na nga bàyyi xel aaya yi la jàngal nii njëlbeenu aaya bi yàlla ne man yàlla may yëkkati daraja way gëm yàlla ñi waaye dinaa yëkkati daraja ñama jox xam-xam ca suratul mujadala yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajatin beneen aaya bi ca suratul fatir bur yàlla ne ñu innama yaxsha allaha min ibadihi l ulama ña fi nekk di bàyyi xel yàlla ña fi nekk di ragal yàlla ña fi nekk di sóoraale yàlla ci si lépp la ñuy jëf ci xam-xam balen yàlla dénk ñooñu duñu ñenn ñu dut boroom xam-xam yi moo tax yàlla ne innama lu fi nekk yaxsallaahu ñu taqoo di ragal yàlla min ibaadihi ci jaami yàlla yi du ñu ñenn ñu dut al ulama boroom xam-xam yi rek a fi nekk di ragal yàlla boroom xam-xam yi rek a fi nekk di bàyyi xel yàlla seen jëflante ak xam-xam ba leen yàlla jox moo ne gone bu tuuti bu xamul danger ba nekk ci safara ñàkk kaa xam moo tax muy jubali di jëmale ci safara si gone bu nga xamante ne xamut danger ba nekk ci la koy lor muy jubal di jëm ci danger boobee ñàkk kaa xam moo tax muy jëm foofee kon képp ku xamut yàlla képp ku xamul xam-xam balay ragaloo yàlla yaa fi nekk di jëfandikoo la nga xamante ne mooy la tax yàlla mu di la ci duma waaye képp ku xam la nekk fa yàlla ci xeetu xéewal képp ku xam xam-xam ba nekk fa yàlla ci xeetu xéewal ya nga xamante ne moo nekk fa moom wala xeetu mbugal ya mu waajalal képp ku ko weddi ki xam-xam-xam bi ni mel mu leer sa bopp haa yow di nga xam dëgg dëgg dëgg dëgg ne war ngaa bàyyi xel yàlla ci seen nekkin moo tax yàlla tabal borom xam-xam yi garal bu toll ni ne ñi fi nekk di bàyyi xel yàlla ñi fi nekk di ragal yàlla ñi fi nekk di fuglu yàlla ñi fi nekk di suuraale yàlla ci seen xam-xam yi du ñu ñenn ci jaamu yàlla yi ñu dut borom xam-xam yi ñoom la yàlla ne ci sortu taaha waqul rabbi zidni ilman dee leen ma ñaan man mi bind fa ngeen di stocké xam-xam ak fa ngeen koy dugal seen biir bopp na ngeen ma ñaan ma yokk leen xam-xam ndax espace boobu la fa nekk ci espace bu vide man yàlla mi ko bind maa ko xam kon ñaan leen ma ngeen remplir ko nu mu gën a feesee ci li leen di njëriñ ci seen dund àddina ak seen dund àllaaxira ca surtout taaxaa mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jibbal béréb bi ñooy tas xabaar ci nasaraan saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahumma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfada biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan wa qul rabbi zidni ilman subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim amin ya rabbal alamin baraka allahu li walakum fi alquraan alazim wa nafaani llahu wa iyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li walakum min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwa alghafuru arrahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu